Sénégal nag am ci wàllam ah li ñuy wax rek mooy Sénégal maanaam génnagul ci guute gi mu nekkoon depuis 2016 ak li ko wees ak ko wees parce que depuis 2016 ñu ngi doon liggéey pour que note ci gën a gën a gën a avancé mais depuis 2016 notu Sénégal yokkuwul 45 cinq yem 45 2016 sur 100 45 2000 sur cent en 2017 45 également en 2018 45 en 2019 te indice bi maanaam jumtuwaay bi bu fekkente ne amuloo euh, cinquante mooy xaaju 100 dañu wax naan yaa ngi nekk ci zone rouge donc nañ jàpp ne Sénégal ba léegi mi ngi ci nekk ci zone ci zone rouge loolu mën nañ ko jàpp boo jëlee ci wàllu Afrique Seychelles moom moo nekk ci kaw te Seychelles boobu noonu rawee na Sénégal lu tolloog ñaar fukki poñ ak benn nga jël lu ma ne CEDEAO benn benn dëkk donc ci biir CEDEAO moom moo génn zone rouge bi mooy Cap Vert te Cap Vert boobu naam génn na sax zone rouge bi mais teg na beneen jéego la at bi passé amoon na 57 point mais at bi dafa am 58 point maanaam génn gi génn gi mu nekk gi mu nekk ci ci ci biti euh, euh, euh, zone rouge bi taxul mu yaaf yaafus dafa gën a teg beneen jéego pour génn également ci ci ci am benn point muy mu 58 sur sur sur 100 mais gannaaw Cap amul beneen dëkk boo xam ne nekk na ci zone CEDEAO am 50 sur point amul nga jël lu mel ne UEMOA UEMOA moom amul benn dëkk boo xam ne nekk na UEMOA bu am cinquante sur 100 ñoom ñëpp doo nekk ci zone ci zone ci zone ci zone rouge bi ba tax na ñu ne loolu li ko gën a waral li tax Sénégal des stagné ci zone rouge bi bokk na ci li ñuy wax impunité parce que ak ak ñàkk jox li nga xam ne askan moo ko moom mooy ñu leeral leen seen askan nag seen alal nag lañ ko yoree Cour des comptes IGE OFNAC ARMP yoreel nañ ay sénégalais ay rapport ñu bind nañ ñaari yoon IGE euh, euh, bind nañ ñaari yoon IGE bind nañ ko benn yoon tontu wuñu Cour des comptes bind nañ ko ñaari yoon bu si nekk tontu nañu mais li ñu mën a jàng daal ci lettre mu leer mooy rapport Cour des comptes yi pare na rapport 2015 pare na rapport 2016 pare na rapport 2017 pare na rapport 2018 pare na li ci des mooy publier ko naam am na argument boo xam ne nag Cour des comptes ñu ngi koy wax ànduñu ak ñoom ndax buñ ne dañuy xaar ñu ñu jox rapport bi président de la République joxe rapport nekkul organisation solennelle te loi bi wax ko fen donc Cour des comptes amal nañu euh, askan wi àq boo xam ne mooy war a publier seen rapport rapport contrôlé ba léegi defuñu defuñu ko loolu nag également duñ ci duñ ci jokkar bi kese Cour des comptes dañ ciy jokkar bi également président de bi nga xam ne moom moo ne woon day xeex corruption moom moon en 2012 ba ba ba ci fan yi moom moon na woon gouvernance vertueuse donc moom tamit ñàkk agir bi ñàkk agir dafa nekk complice li nga xam ne moom la Cour des comptes également également fës fësal bokk na ci également li tax euh, ñu des ñu des également ci zone rouge boobu noonu ay dossiers yu si bëri yoo xam ne fi nekk nii Sénégalais yi xamaguñu leeraangeem surtout affaire Big Togo dama koy waxal encore fois Big Togo waxoon nañ ko il y a 2016 2016 je pense 2016 problème mu passeport yi fi doon defar ak ministère de l' intérieur ñun indemniser ko lu toll ci 12 milliards yoo xam ne indemnisation bi baaxul illégal fa illégal te nekkuloon sax benn concession mais ñaar concession la woon te ñun 12 milliards sax dañ koy contesté ba tax waxoon nañ ne gouvernement bi nañ publier le PV de d' ba léegi publier guñu ko ñu ne déetawaay Big Togo ñëwaat. ñu jox ko marché boo xam ne ci 30 milliards de francs CFA boo xam ne moom bokkuloon ci consultation bi 30 milliards de francs CFA ñu jox ko te amul benn université boo xam ne gis nañ ko au niveau de université bu tudd université Amadou Mahtar Mbow. donc affaire Big Togo dafa nekk loo xam ne lu ñu war a lu ñu war a leeral la ba léegi amuñu ci benn leeraange ñu ne déetuwaay nga jël lu mel ne Prodac Prodac dañ ko bëgg di politiser ma nekkul lu xam ne dañ koy politiser Prodac dafa nekk loo xam ne lu am lu ñu lu ñu fullaal lañu en tout cas ñun forum civil ñu ci wax ay 29 milliards. damay wax fay fii tey du vingt neuf milliards mais affaire u trente six milliards de francs CFA la du vingt neuf milliards affaire u trente six milliards de francs CFA la ba tax na ñun dañuy woo assemblée nationale ne ko amee na ñu amel na euh, àq sénégalais yi parce que dafa war a mettre en place une commission d'enquête parlementaire ci wàllu bi Big Togo ci wàllu également jëm ci jëm ci également euh, euh, pro Prodac am na beneen mbir boo xam ne wax impunité parce que gis ministre boo xam ne yor na fa ay fonds fonds de Euh, euh, féminine cour des comptes woo ko pour déglu ko mu bañ te président de la république agirul en tout cas agirul positivement mais dafa agir ci jox ko ndombal tànk pour mu gérer ministère en charge de l' industrie loolu également bokk ci loo xam ne dafay jëmbal réduction des comptes bokk ci également loo xam ne dafay dafay xeex wàllu corruption li nga xam ne également bokk na ci Sénégal yëpp di ko jooy mooy indépendance manque d' indépendance de la justice te forum civil kese wax ko mais acteurs yi nga xam ne ñu nekk ci biir tamit ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy jooy bu baax bu baax a baax bokkul ci également li wax ci wàllu marché public parce que boo xoolee dafa am instance yoo xam ne instance de régulation muy ARMP muy Sénat ñi fa nekk nekk ay njiit seen mandat dafa jeex bu yàgg boo jëlee exemple mel na ARMP ki fa nekk tey directeur mandaam jeex na depuis près plus de trois mandaam jeex na depuis plus de trois ans gouvernement bi téye ko fa te bu fekkente ne da danga illégal da ngaa légitime illégitime ñu téye la fa li nguur gi bëgg moom ngay def au détriment de l' argent du contribuable donc loolu également bokk na ci également lu tax Sénégal euh, gën a nasax ci ci ci ci mbir mi ba tax na ñu ne ñun pour ñu génn ci zone rouge boobu noonu dafa am loo xam ne ko proposé mu benn plan plan boo xam ne. il faut que Sénégal ñu adopté ay loi loi yi nga xam ne dafay dafay dafay gën a jëmmal transparence gën a xeex corruption gën a jëmmal réduction des comptes loi sur l' accès à l' information projet bi pare na mais gouvernement bi ba léegi adopté gu ko loi également sur le financement des partis politiques loolu duñ ko bàyyee uniquement les partis politiques parce que ñoom bu ñu leen bàyyi ñu tëjoo seen biir ñu tëgg seen loi boo xam ne dañuy cërcëroo xaalis bi comme ni muy demee ci yenn dëkk yi loolu nañ dul nangu ñu établir ay loi sur le financement des partis politiques yoo xam ne dafay intéresser uniquement intérêt des partis politiques yi ginnaaw loi sur le financement des partis politiques il faut également ñu am une loi sur le financement des campagnes électorales parce que ba léegi da ngay xool bu ñu demee campagne électorale kii day am ay armeur kii am charrette kii am clando kii am taxi alors que dañoo war a yem ci wàllu campagne électorale parce que on est en démocrate en démo en démocratie comme ça se fait également dans dans plusieurs démocra beneen loi également boo xam ne ñu ngi koy proposé pour xeex wàllu corruption pour xeex wàllu impunité pour xeex wàllu euh, euh, pour promouvoir redevabilité mooy ci instance yi nga xam ne dañuy liggéey xaalis bu bari ñu ne ñu fa nekk ay njiit lu mel ne impôt domaine lu mel ne douane ñu ne seen haut cadre yi xam ne loi bi nag nañu koy tëggee mais haut cadre forum civil dañoo jàpp ne waratuñu def politique forum civil également nee na buñ bëggee buñ génnee buñ bëggee génn ci guuti gi ñu nekk nañ accompagner OFNAC nañ ko accompagner ci projet de révision bi muy def ci wàllu déclaration de patrie ci patrimoine bokk na également xam dañ ko invité également gouvernement bi moom mu def ay audit mu audité li ñuy wax les institutions sociales IPRES ak caisse de sociale mu réformer et maintenir la cour de répression de lancement illicite et woo ñi nga xam ne desoon nañ ci liste bi nga xam ne moom la procureur monsieur Alioune Ndao waxoon ci jëmi jamono en 2012 su ma jumul donc ñooñu également war nañ wuy ji la cour de répression au lieu que ñuy dem di làqatu ci également ci ci gouvernement wala dem di négocier également avec le gouver avec le gouvernement bokkul ci également li nga xam ne dañu koy recommandé mooy en wax nañ ko sànq Cour des comptes IGE OFNAC ARMP nañu jox rapport yi nga xam ne moom lañu yoral Sénégalais yi ñu ngi invité également assemblée nationale parce que en 2016 dañoo voté benn loi constitutionnelle par référendum jox leen ay pouvoir ñu ngi ñaan ñoom ñu user seen pouvoir constitutionnel yooyu user également seen pouvoir législatif pour leeral askan wi ci projet yi nga xam ne ak programme yi ne dañu ko tegoon en place ci biir Sénégal bokk na ci autoroute Ila Touba bi fàttewuñu ko ba léegi dafa war a leer naka lañu ko financé parce que plus de six cent et quelques milliards lañu wax mais ëpp na ko donc gouvernement bi également war nañu leeral loolu. Euh, euh, l'autoroute Dakar Diamniadio booy bii ngeen gis nii avec la concession plus de trois cent quatre milliards boo xam ne sunu xaalis la ñoo ko financé ñu ñuy loo ci loo xam ne du yoon. le pôle industriel de Diamniadio plus de vingt milliards initialement vingt milliards am na ay travaux yu bari bari également jot na ci def. réfection budget administratif ñu wax diggante 17 milliards ak 44 milliards de francs CFA te ku gis état bi xam ne jarul sax 17 milliards de francs CFA. autoroute Mbour Kaolack la même chose la la cité de l' émergence bii nii war nañ approfondir parlementaire war nañ approfondir pour xam kan moo ko moom ak ñan ñoo ko tabax parce que offre spontanée lañu waxoon nañ xoolee nga man ma fa nekk. le centre international de Diamniadio plus de 60 l'université Amadou ak Makhtar Mbow bi nga xam ne tey jii nii seen confrère également révélé nañu plus de milliards de francs CFA joxe nañ ko fa te université bi ba léegi taxaw ba léegi taxawul li nga xam ne également dañ ci insister tamit rey baykat yi tamit rey ñi nga xam ne ñoo nekk ci monde rural bi mooy wàllu semence yi biñ koy wax encore une fois boobu sax daanaka ñu nekkoon ci gouvernement bi yëpp muy Moustapha Cissé Lo ñëpp dañoo benn na bañoon na amul waaye li ñu injecté ci ci en tout cas deux mille depuis 2017 bu fekkente ne le même montant nañu nañ nañ nañ nañ nañ nañuy injecté chaque année parce que 2017 ñu ñu suñu xayma injecté nañ lu toll ci 380 milliards de francs CFA en 2017 mais bu fekkente c'est le même montant qu'on qu'on injecte chaque année donc diggante 2017 ba 2019 c'est trois fois 380 milliards de francs de francs CFA donc loolu jëmul ci baykat yi parce que li ñu ne def nañ ko ci baykat yi li ñu ne jox nañ ko ci baykat yi jox nañ ko baykat yi en en terme de semence boo ko saxaloon même géej gi dina sax gerte wala mu sax wala mu sax dugub boo ko évaluer fu ñu mujjee mooy di encourager le doyen de juge pour mu leeral askan bi mbiru 94 milliards fan la toll ak naka la demee ñu ngi encourager le doyen de juge pour mu leeral askan bi mbiru Petrotim Limited nan la demee. contrat yi naka nañ ko joxe bu ñu yem rek ci ay diw noonoo non jëlu six mille milliards non non joxe na quatre cent milliards quatre cent quatre cent mille francs déedéet loo tax ñoo jóg de li ñu tax a jóg fondamentalement ci wàllu Petro-Tim mooy xam véritablement les conditions d'attribution des deux blocs bu Kayar ak bu Saint-Louis donc ñu leen di jë jaajëfal di leen gërëm di sant.